waaw kontaantum la parce que li may jëkke mooy remercier conseil municipal bi ñu permettre aujourd'hui ñu mën a dégager 4 millions tegal ko équipe yi defe naa ni comme ni ngeen ko constaté rek joué nañu final bu neex boo xam ne ñaari acteurs yi def nañ ko dans la plus grande sportivité vainqueur bi am 1 million vaincu bi am 800 mille demi-finaliste yi ñu jox kenn ku ne 200 mille ak vraiment équipement yi ñu si boole yëpp muy doon loo xam ne lu rëy rëy la di gërëm aussi suñu naataange yi nga xam ne ñooy maire département bi gis ngeen daanaka maire département bi yëpp ñëw nañu muy maire Thiénaba di maire en fait Kër Moussa di maire Toubatoul di maire Njaañ Sira di maire Tasset ñoom ñëpp ñëw nañu booleeg nag ñaari ministre ñëw muy le ministre des forces armées Augustin di suñu responsable ak notre ami Makhtar Ba di ministre sport vraiment di leen di sant di leen gërëm di ñaan yàlla aussi li leen président de la république dénk yan boobu woyof leneen li ma si dolli rek mooy wax nan ko def naa ni gis ngeen stade bi yàlla def na ni ñu ngi si ay travaux ñuy gërëm encore une fois conseil municipal bi nu mën a may permettre ñu si fonds propre ñu wut ay projecteurs c'est vrai que samp nañu projecteurs yi bu desoon courant mais gis ngeen ni poteaux yi samp nañ ko dans 15 jours incha allah rabi poteaux yi daan ko taal. diriger bi bon vraiment mbégte mu rëy que vraiment woote ñu wuyu si la dafa neex et puis ñi ñi la dénk vraiment jox la les moyens nga nga organiser ko si anam ba mu gën a rafetee vraiment si fair play ak la dans la discipline vraiment duñ def lu dul sant yàlla commencé nañ ko woon si bisimilah rahmaani rahim terminé ko si alhamdulilah rabil alamin tey c'était bilan bi la woon te ñëpp jugé nañ ko seen bopp kon dañuy door sant. bon vraiment bon commune bi li ñu siy xaar je crois que am na ay tànk yoo xamante ni wane na ko parce que depuis que ñu nekk si commission bi depuis 2012 bi ñu fiy ñëw am na ay euh, doléance yu ñu ko waxoon mais à chaque fois aussi lu ñu ko waxee aussi mu taxaw si bi ñu fi njëkk a ñëw dañoo nañ fexe ba améliorer euh, stade bi mu nekk stade multifonctionnel que ñu si xëyeen suñu ñi nekk si école ñëpp di ko ñëw di ko mën a jëfandikoo mais boo xoolee tey vraiment on a posé woon ko doléance des que projecteurs ñoo ko samp bon ñoo lance euh, lancé nañ appel d'offre beneen tribune kon je crois que le ministre en personne mu promettre gazon synthétique kon je crois que si le plan sportif vraiment am liñ bon vraiment dañuy ñaan yàlla may ñu euh, fii ak incha ren wala déwén incha allah ñu am euh, des projecteurs ak deuxième tribune vraiment ñu am terrain bu vraiment boobu te ni la mën a recevoir des matchs de championnat même merci beaucoup.